dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyantoo yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu coalition benn bokk yaakaar ni ki démb ginnaaw digg bëccëg gi jano nañu ak taskatu xabaar yi waaye la ñu yëkkul Ousmane Sonko dañu ko fàtte ndax nee nañu danañu ko porte plainte complot d'assassinat ndax nee nañu fukki fan ak benn ci weeru mars bi xam ne moom la ñu génn manifestation yi ak ñi nga xam ne ñoo ci faatoo ñi si am jamono ji li muy sàkku maanaam moo ñu jox ko doomam ba léegi maanaam tegu si bët yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu jafe-jafe yi am ci réewum Sénégal ak piccoo mbaalo gi am na ñaari député yu français yoo xam ne bind nañu ay lettre daal di alerté ndax ñoom dañoo jàpp ne ñu bëri ci askanu Sénégal li ñu jàpp mooy wàllum ñetteelu candidature Macky Sall mën naa indi ay jafe-jafe ci réew mi te nag ñoom li ñu jàpp mooy bëri na ci askan wi ñoo xam ne gis nañu ne Ousmane Sonko dañu koy bund xatal tension politique beeg jafe-jafe yi loolu lépp nañu ci yéen kaay gi de la la témoin xëy duñu xibaar naa waa bitim réew joxar bi nañ baaraamu tuuma réewum Sénégal ci lu jëm ci wàllum saax-saaxi démocratie ak lu soxal ak ak yelleefu askan wi nga xam ne dañoo jàpp ne maanaam dañu koo daal di ak lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall ak yi nga xam ne mën na koo andi ci réew mi gi nga xam ne gis nañu ko fi ak wàllum gerge corruption beek justice bi nga xam ne dañu koy instrumentaliser yéen gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall Sall nay wax ne képp koo xam ne wàccu woo war a respecté woo li nga xam ne mooy volonté populaire maanaam bëgg ñu ëpp ci askan bi yow yaa bëgg dugal réew moomee si musiba ma bu kumba ci biir journal bi di réew mi quotidien Aminata Touré xëy duñu xibaar naan ñu président Macky Sall ci atum lu leer la waxoon ne woon na bu ñu ma falatee mooy nekk sama ñaareel ak sama njeexantalu mandat jamono ji nag li nga xam ne moo am ba de Sall maanaam démocrate yëpp ñoo war a joxante Sall arrestation yi jamono ji ma ngi mel ni tulleeg man la ci réew meek tension politique nga xam ne am na ci réewum Sénégal loolee moo tax journal bi di évidence maanaam di ñaan yàlla mu daal di sauver réew mii di Sénégal yéen kaay gi de l'Observateur ñu xibaar naan ñu docteur Babacar Niang mi nga xam ne moo jiite clinique bii di suma assistance moom nag daan nañu koy teg loxo ca diwaanu Medina Njaaj be waa gendarmerie ñoo ko jàpp yéen kaay gi de Libération xëy dañu yi jox nañu gendarmerie ndigal nag ñu daal di koy teg loxo yéen kaay gi des juges bu tribunal Pikine Guédiawaye niki démb lu toll ci fukk ak ñaar ñoo xam ne mandat na leen dépôt yéen kaay gi de la Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu personnel médical bu clinique suma assistance ñoom nag nee nañu Ousmane Sonko du ñoom ñoo ko doon suivre du ñoom ñoo ko doon faj dafa am benn équipe spéciale boo xam ne ñoo doon faj Ousmane Sonko yéen kaay gi de ñu xibaar naan ñu médecin yu clinique suma ñoom nag nee nañu dañoo jot ay ndigal na leen bu leen am accès ci Ousmane Sonko bu leen ko laal bu leen ko jege ndax dafa am benn équipe spéciale boo xam ne maanaam mooy wàllu wér gi yaramam yéen kaay gi délibération nee na docteur Cissé mi nga xam ne moo nekk hôpital principal kookee mooy médecin personnel bu Ousmane Sonko ak njabootam kookee déglu nañu ko waaye nag li mu wax mooy moom ci boppam fajul Ousmane Sonko waaye docteur Cissé nee naam fajul Ousmane Sonko waaye moo gunge équipe spécialiste bi nga xam ne ñoo doon faj Ousmane Sonko loolee la docteur Cissé wax moom mi nga xam ne hôpital principal la nekk nekk médecin personnel bu Ousmane Sonko nee na dafa am benn équipe ay spécialiste spécial yoo xam ne ñoo doon suivre Ousmane xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi ba léegi coow li mu ngi riira ndax bëri na ay intellectuel africain yoo xam ne bind nañu Macky Sall ngir nag mu daal di revenir à la raison ngir mu xoolaat boppam yéen kaay gi de la Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu opposition bi jamono ji piccoo mbaalo gi nga xam ne moom la ñu nekkee ak lu jëm ci wàllum calcul bi loole la ñu war a teg si suufa daal di boole seeni doole mën a jàmmarloo ak Macky salla yéen kaay gi di exclusif nee na Ousmane Sonko jamono ji mën nañu ko jàppee président de la République ndax Ousmane Sonko keroog ba muy def ab live téeméeri junni ci ay nit maanaam ñoo ko doon seetaan te nag Ousmane Sonko jamono ji mooy leader politique bi nga xam ne moo sonal nguur gi loola jamono ji maanaam ñi nga xam ne tamit ñooy adhéré wa di bokk ci projet bi bëri na lool yéen gi di réew mi ko di jeex di ñu xibaar naan ñu jàngalekat yi mer nañu ñi nga xam ne ñooy waa CUSEMS ñoom nag daat nañuy alerter ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy yor njàng mi ak njàngale ndax ñoom jàngalekat yi nee nañu bëri nañu jàngalekat yoo xam ne jamono ñoo ngi ci kaso yi waaye tamit bëri yoo xam ne ñoo ngi ci kaso yi jàngalekat yi nee nañu tamit takk der yi nga xam ne ñooy dugg ci école yi loolee ñaawlu nañu ko lool yéen kaay gi di 24 heures xëy duñu xibaar naan ñu syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllum yoon ñoom nee nañu dinañu amal ñetti fan yoo xam ne ñetti fan yi grève lay doon yéen kaay gi di direct news sa xën mu njëkk mu ñu fekk fa madame Siré Diack association femmes émancipées daan nay wax ñoom seen objectif li ci njëkk bokk na ci jàppale ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi rawatina xale yi wax na jafe-jafe nga xam ne moom la jigéen ñi di jànkonteel yéen kaay gi di sunu lamb xëy duñu xibaar naan ñu combat lac de guerre ak na waaye nag jamono na se ndax ki mooy Lac de Guiers numéro 2 jamono ji ma ngi dànkaafu Siteu ndax nee na li tax mu jël Siteu VIP dañu ko ragala moom Siteu daan nay wax ne am na jom daan ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2 waaye tamit nee na li ci gën a neexati dina fayil Yékini mi nga xam ne lag de Guiers numéro 2 daanoon na ko